梅兰。 téléspectateurs yi nga xamante ni si a taamu di topp seen site internet bi di mourides point info ba tey Ndeye Thiam Saliou lay doon ngeen di ci ànd moom saa su nekk ak ni ngeen ko bëggee ñi ngi ziar ki nga xamante ni mooy xalif général kullu mouride Serigne Mountakha Bachir di ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ay cëram ba noonu ngeen ciy ànd ak Ndeye Thiam tey ne bu ngeen gisee fii ma taxaw nii moo di fan xamante ni si chaque année dañ koy def ren di vingtième édition ngeen di ci ànd ak seen site bu màgg bi di mourides point info noonu ngeen koy ànd ak yéen mooy site bi nga xamante ni si bàyyiwul dara ci li nga xamante ni si mu tari alxuraan màggal dem ba ci ay conférence noonu ngeen ci ànd ak murid point info mu di leen ko indil ci anam bi nga xamante ne si noonu ngeen ko bëggee di ci ànd ak Ndeye Thiam Sali mu leen koy présenté ci ni ngeen ko bëggee. li fa ci noonu di ànd ak moom ñëw fi bokk teewe ci bis bi kon bu fekkee diggal na nu jël kaddu du nu sañ bañ ndax ndigal rek ci la ñuy dox waaye bett nu lu nu bett bett it waaye nu sante ko yàlla gërëme ko sëriñ Tuubaa ah, di wax ne rek lii tax ñu teew fi day lu war a am ku ñëw ci kër Cheikh Amadou Lamine Bara fekk fi sa di njaboot sëñ Fallou bu ñëwee ci njabootu Cheikh Amadou Lamine Bara doonul ñaari njaboot genn njaboot la ndax sëriñ Bara ak sëriñ Fallou ñoo bokk soxna Awa Bousso ci lu ko xam lu ko xam li xew lépp ginnaaw bu ñu bokkee soxna Aminta Lo ba noppi bokkaat ku mag ki di sëriñ Touba sëriñ Bara ci boppam it yàlla dogal diggante bi mu fi am mu doon fi jëf jëmm joo xam ne kenn mënu ko fàtte ndax li ko yàlla jëkk a jagleel rek mooy gane gi mu gën a gën a gën a gane àdduna ci ci Touba ci ci njabootu sëriñ bi mm-hmm. loolu ab cër la boo xam ne dara wettiwu ko euh, jëmm jii ko sëriñ Fallilu tuddee woon muy Cheikh Mamadou Lamine Bara jëkk a toogee ci sët yi jotaayub sëriñ Touba kenn ku ne xam na ne loxol sëriñ Bara jógu ci say alaj Bara ci boppam moo ma nettali na ma bi nga xamante ne bi Cheikh Mamadou Fadil jóge na Makka mm-hmm. nee na sëñ Bara dafaa ñëw ne ko yaara ma yëkkati dama lay siyaare si ci yoonu Makka yi waaye di jël si waale sama turandoo nee na booba keroog suñu wàllu na ko acca bisimilaay nee na keroog ñu ñu jóge fa fekk boobu ndin la ko fekk nee na nee na keroog bu ñu fa jógee mbàkke bool lañ bokk yendu ci waxoon na sax turu ko euh, boppam la ci war ci taxawaay lépp mu def ko ba batale ko yoo xam ne leer kenn ku ne euh, xam na ne jeexit sëñ Baara am na ci moom kon bu ñu ñëwee fii Euh, ci kër Cheikh Mamadou Moustapha moom Cheikh mu Serigne Abdoul Aziz mu ñëw fi fekk fi njabootam fekk fi Serigne Bara mi ñëpp kon danoo war a xam ne fi nu ñëw dañ fee war a ñëw. Cheikh Moustapha moom ci boppam doonoon na jëmm joo xam ne ku kenn dul fàtte la. jàmbaar la ab liggéeykat la jaamukatu yàlla la nit ku gore la woon lu ku baaxoon koo xam ne kii kenn ku laal Serigne bi ku ne bëgg ngaa xam ci moom dara bëgg ngaa bëgg ngaa colorante wu njabootam ndax doxinam noonu la meloon. ba ci sunu jigéen bii ko Serigne Mamadou Moustapha li joxoon muy soxna astu mu am moom ay njaboot kenn ku ne xam na ne loola fu ba ku bax ku bëgg lu bax fu lu bax nek da nga koy sakku moo warloon sëñ Mourou jox ko lool nak yaakaar tassu ci yalla ci amagu neew yalla na ci yalla def barké barké señ Touba bu lool jàllee yit señ Cheikh Ibra señ mam Bara mi noo ngi dollu séré la ci mom ay taxaway yu mat nit la ku bax ku yaru la ku bëgg lu bax la ku am taxaway la Touba ci kanam gu ngay toñ nan señ borom Touba ci kanam mom mi defé na ne bu ñu wax borom Touba ci kanam may na ko waxal te boba da du ci dañ ndax ñiko samp ci la bokk sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne yàlla baaxee na ko muy ndaw lu yaru yàlla na ko yàlla doolee dimbale may gudd fan gu moom mii mooy kilifaam moo ko yar ànd ak moom kon bu yàlla dogalee sëñ Touba yëkkati bi liggéey jaarale ko ci moom moom boo waroon àdduna nanga li mu fi di whatsapp ëpp na milliard waaye benn whatsapp am moo ci whatsapp boo xam ne sëñ Touba ko moom ci lu loo xam ne ñëpp xam nañ ko kon loolu tawfeex am la waaye tawfeex yi sëñ Maam ak sëñ Moussa mais nekk rom nga xam ne moom itam liggéey ba fu mu àgg foofu ci réew ma ci ak yéenam la ak pastéefam ba tey ba tey am kon noo ngi seere loolu di seerale waaye nag liggéey baangoog sëriñ Touba ma sàmb moom ko ma dem moom ko sëriñ Touba ko moom yàlla noonu yàlla na fi teewaat ay déwén yàlla nangu ñaan yi nangu barkeeb daara yi nga taxawal di jàngal alxuraan kenn ku ne xam ne ñor na la yaa ngi liggéeyal sëriñ Touba sa defal ndam yàlla na yàlla àggale suñu yéene barke sëñ Tuubaa sëriñ Abdoul Aziz di sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoul Aziz ñu nekk fi nag ci kër sëriñ Maam Baara Mbàkke waaye tam feggoo kenn koo xamante ni wàccuwaay wi nga xamante ni rek euh, moom la sëriñ Maam Baara am sëriñ Abdoul Aziz am ko moom rek la am ci bis bi mu di euh, sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Touba Cheikh Sidil Mokhtar Mbàkke waaye itam feggoog rakkam di sëriñ Modou Aïcha moom Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke Serigne bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la pare ndokkeel la jaajëfal lu baax a baax ci teewaay bi yaakaar naa tey mën nga fee teewal ñëpp mën nga fee teewal jëmmi Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax sa digganteeg ñoom rafet na waaye itam sa digganteeg sa mag ji di Cheikh Mouhamadou Moustapha ñëpp ràññee nañ ko rafet na yàlla na yàlla guddal fanam yokk ak wéram ba lii mébétam ak naalam ci eggale liggéey Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar ak uuf njaboot ak bi mbi ko waxee woon mu leen wooyee ca wooteem boobee ni damaa bëgg a nekk jaamub sëriñ euh, Baara fas yéene liggéeyal sëriñ Baara ci njaboot gi loolu rek lay taxawee boobaak léegi yooyu itam ngay jëriñam amu ànd ak mbooleem ay rakam yëpp tey nag ñuy fàttaliku kenn ci njaboot gi euh, di sëriñ euh, Moustapha moom sëriñ sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Aziz taxawaay bu am solo la amoon moom tamit ci lislaam ji nga ñëw tey yan kàddu yi seere ngay yëkkati jëmale ko ci bi ak jëmm ji nga xam ni moom lañ nekk këram ni tey di sëriñ Maam Baara ak mbooleem njaboot yëpp Assalamualaikum, warahmatullahi rahmatullahi taala wabarakatuh. barakatuhu ginnaaw bi ñu subhanahu wa taala di julli ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di cheikh Seexuna cheikh ahmed Bamba khadim Rasul di ñaanal cheikh muntaha mi nga xamne mo fi serigne touba sunu borom guddal aw fanam ba li mu ci tolu cheikh ahmed Bamba sunu borom agal ko ci jamm ak salam di ko ñaanal ki nga xamanteni ne si moo cheikh mohammed Lamine di serigne Moustapha bu cheikh Sidi muhtar ñu ñëw ci ndigalam nag ñëw ci ay kàddoom ànd koog sama euh, sama rakk Serigne Modou ay ak Serigne Khadim Diop ñi xamante ni jazbaat la ci ñu ñëwoon ci bis bu tedd bii nga xamante ni dañ ci fàttali ku baax ku tëdd euh, di Serigne Moustapha Serigne Moustapha Bessis te kenn ku nekk xamoon digganteem ak kër gi digganteem ak adduna diggante ak ak ak mbooleem kuy wax ashadu an laa ilaaha illallah di Serigne Moustapha ñëpp xamoon ko ci liggéey jaamu yàlla ba tax maanaam liggéey boobee ak jaamu yàlla joojee ki nga xamante ni si moom la fi jamonante woon di Serigne Saliou Mbacké euh, am fu ko teg ba jël quartier bi euh, jox ko ko mu yaatal ko lool te xamoon na ni lii la fi bëgg waaye nag Serigne Moustapha yar loolu ci ak njabootam di ci jiital xalifaan bi di Serigne Abdoul Aziz moom tamit dafa euh, Serigne dafa bàyyam bàyyi woon mu yokk ko lool gën koo yaatal lool ànd ak ay rakkam ba tay sa sa su nek ñukay magal magal go xamni magal gu jaar yoon la te magal gi li ci jitu moy li sunu borom gëna bëgg muy alquran li Serigne Touba gëna fonk muy khashida li nga xamne yoonu murid mom la ñuy dund muy ak Baye Fall nga xamante ay sikkar lepp ñu ci biir kon bu ñu ñëwé tay ji ci ndigul Cheikh mustapha ñëw ci bis bu tedd bi fekk fi mbolo mu bari mo xamanteni ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ak jëmmi Cheikh Moustapha rek moo leen fi teewale ñu koy ñaanal bu baax suñu borom yokk ay leeram ci barsàq di ko ñaanal képp ku fi teew ku nekk sunu borom jéggal la say bakkaar ah ñu ñëw fii nag ci Serigne Mame Bara Mbacké mi nga xamante ni euh, heure boo doxee rek bu dox boo ko gisee rek ci ndigal la dox ndigal li nag la ci jiitu mooy li nga xam ne suñu borom moom la gën a fonk muy alquranu karim sunu borom féetale ko ak moom ci njabootu Cheikh Moustapha ñëpp sax. ci féete waaye moom ñu gën ko cee settee mu nekk jàmbaar joo xamante ni gone la waaye nag doxinu mag lay doxi ñu koy ñaan nag suñu borom guddal aw fanam bi li mu yéene ci euh, toolu si Ahmadou Bamba suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam ñu xam ni ndaw la loo xam ni ma nga fa tànki maama ngay jaaroon ak tànki bàyyi mi fa la jaar rek te bu ngeen ñëwee ci kër gi gis mbooloo mi euh, lépp nag du caagee ni jur gi ko Cheikh Moustapha jur déedéet jikkoom moo ko may lii mu am tey jii kon loole si Serigne Moustapha mi koy ci sant di ko gërëm di ko ñaanal te di te di ko xamal ne ko na ko Cheikh di Muxtaar jàppe woon rek noonu la ko jàppe Serigne bi tamit nekkoon Sidi Sidi Muxtaar tamit nekkoon koo xam ne ku fonkoon Maam Baara la nga xam ne fu ñuy wàccee ay kaamil ak lu ñu mën def ci muy lu Mbàkke Kajoor mu yeneen xew-xew yu ci nekk rek ba mu ñëw mu ne ko ah, loole kayit yow laa ko féetaleel kon loole yaakaar nañu suñu borom may na ko ci ndam ñu koy ñaan rek suñu borom musal ko ci cat musal ko ci ndob ba fa mu bëgg a àggale liggéey bi mu àggale ko fi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal képp ku fi teew rek nga teewaat fi déwén nga wañ a am benn jafe-jafe-jafe kon sëñ Maam Bara daal ñu ngi lay sant di sàkku ci yow ñaan tamit nga ñaanal ñu ndax euh, foo nekk fa nekk ndigal moo la fa bàyyi nga tàmbali ci Cheikh Salihu ba ci Cheikh Sidi Mokhtar ba ci sëñ Moustapha ak ki nga xamanteni ci mo fi nek Cheikh Abdoul assis Serigne Abdoul Karim di sen jëwriñ ci toolu Cheikh Abdoul assis man tamit fala la sa waajur a tegoon rek la tek kon ñu ngi sante bu baax di gërëm ñep di ñaanal assalamu alaykum wa rahmatullah wa <coughs> euh jotaay bi nak day melni day soppi ko ndax bu jekk bi may wax dama sañu na wax ndax sama kër doom la nekkon waye bi yon nak ab taalibe wax ci ndigalul ay kilifaam ndax la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun señu ma yekati sama kàddu ci kanam sama wayjur yi lu maam ci seen digal kon nak bima ko ci amé sëñ maam bara ñi ngi wéy ci liñ doon wax ci jikko señ muhammadul mustafa sa wayjur wa di sunu mag nit la won ku am dignité ku am ngor ku am jom ku am diine ku bëggoon sëñ Touba te defaroon boppam sëñ Touba dafa am lu mu mas wax Cheikh Mouhamadul Moustapha daf ko ni na ngeen defar seen barab muy dëkkuwaay ba kenn du leen yàpp loolu sëñ Moustapha Abdoul Aziz def na ko barab bi mu sëñ sëñ Touba teg ca ni sëñ Mouhamadul Moustapha na ngeen defar seen jëmm ba leen gis xeemeem leen noonu la defoon jëmmi boppam ji mu teg ca ni ko na ngeen defar seen jikko ba ku jaxasoog yéen dootu leen mën a muñ Cheikh Mouhamadul Moustapha ku jaxasoo nag moom mënatuloo koon a muñ mm-hmm. ñett yooyu nag dafa daje woon ci sun mag ju bax jooju di sen wayjur wowe kon ci bis bi nongi ñaan cheikh lamin sun borom yok ay leeram ak maqamam fofé foofe mu nekk ca barsak sunu kilifa yi fi tew nak di serigne ibrahima mbàkke mu cheikh mahmadul fadal ak alaaji serigne takko mbàkke bi ñi wax sunu borom andi len ci jotaay bi dafa melni lolu sédal seede la juy gën a di gëna rafetalat digënté cheikh fadal ak kër cheikh mahmadul lamin Cheikh dul faadal sëriñ Baara da ko masa gane ji Mbàkke Kajoor ba ñu demee bay tàggatoo ñu bind ngan ga dañ koo bind bu doon suñ jamono ji dañ naan dañ ko def lii caméraman yi di def dañ koo filmer waaye bu njëkk yooyu bariwul woon ñoom seen film moo gën a sax film yi dañ koo bindoon bi ñu demee bay waaj a tàggatoo Cheikh Mamadou Fadal dafa bind ay bayit jëmale ko ci sëriñ Baara bayit yu gudd la waaye lii may bëgg a wax ca bopp wax ji ca la bokk سرين محمد الفارل لفكني لله درك من شيق حوى رتبا قد زانها أدب ناهيك من أدبي وزي فدائل لا تحصى وأسقرها ما فيك من حسن الأخلاق والأدب لا لا يجاريك في الميدان من أحد في العلم والحلم أو في الجود والنسب وعند بابكم تلقى الوفود معا man kaana za raxabin minhum wa za raxabi loolu bokk na ci bayit yi nga xamante ne Cheikh Mamadul Faadal bind na ko ca ngan googe jëmale ko jëmale ko ci Sëriñ Baara daf ko wax ni ko rek yéem naa yàlla ci jëmm joo xam ne garaati ci jikko yu rafet yëpp takkal nag ko hmm. muy Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacké daal ni ko nit gënu laa gore nit ëpp la xam-xam nit ëpp la juddu foo nekk yow Cheikh Mouhamadou Lamine day fees dell aku nit te nit ñi li ñuy bari bari ñaari nit rek lañ ku am lu mu ragal bëggoo ko ko daqal mhm. ak ku am lu mu soxla bëggoo ko xëccal mhm. ñoom ñaar ñooñu nag laa silta tuulihimul ihsaana fii abadin maa silta linnaasi taqdi kulla maara bi lu fi waaye indi ci aajo yow seex Mouhamadou Lamine Baara da nga ko ko fajal mhm. loolu la ko Cheikh Mouhamadou Fadal wax sëriñ Baara bindu ko ni ko eh, sëriñ <clears throat> Baara bindu ni tontu ko ni ko bayit yu bayit yu bayit yu gàtt la de waaye yu yu yu am solo la sama xel ak nga koy fàtte de waaye xëy na ci barkeem léegi lépp ñëw daf koo wax daal ni ko xat fuxta xat fuxta sal xalq min arabin wa min ajabin yaa man xalaa'iquhu axlaa min darabi abuuka kaashifu kurabil mustajiri bihi wa anta mislu abikal kaashifil kurabi daf ko wax ni ko yow Cheikh Mouhamadou Lamine sëñ Fallou daf ko wax ni ko sëñ Baara mooy tont daf ko wax ni ko yow Cheikh Mouhamadoul Fadal da dangaa baax di wax jikko yu rafet yooyu waaye jikko yi ngay wax yépp de ci yow la nekk képp kuy arab wala ajam yaa ko gën a kawe ay jikko gën koo rafet la ay jikko Euh, daf ko ni sa jikko axlaa min darab darab mooy lem gi dàq ci lem yi def naa wala lemu nduyoor la koy wax daf ko ni sëñ Fallou lem gi dàq ci lem yi say jikkoo ko dàq wax ko nag ni ko abuka mis abuka kaashifu kurabil mustajiri bihi ni ko sa wayjur wa Cheikh Ahmadou Bamba moo doonoon jëmm ji nga xam ni ku jàq wéeru ci moom mu tàqale laag la nga doon la nga doon daw wala la nga doon tiit mm-hmm. waante nag mislu abikal kaashifil kurabi yow yaa ngi mel ni sëñ tubaa ma nga xam ni yitte yu ko waaye diis mu faj ko bu dee loo bëgg mu def ko bu dee loo loo loo ragal mu dàq ko loolu bokk na ci bayit yi nga xamante ni euh, Cheikh Mouhamadul Lamine wax na ko Cheikh Mouhamadul Fadal bu ñu dee seere nag ci bisub sunu jàmbaar yi Cheikh Mamadou Moustapha ngeen ñëw day mel ni loolee nga xamante ne doxoon na diggante kilifa yooyu da ngeen di ñëw ngir fettali ko da ngeen di ñëw ngir ngir ngeen gën koo rafetal kon jataay bi ak teewaay bi teewaayu baatin la zahir la juñ mën a teg bët waaye li ci biir baatin la boo xam ne eh, ña leen meññ ñoom ñoo ko jëmbatoon démb ak bërki démb teg ko ci seeni loxo nag ngeen di ko doxal téyal leen ko ba mu agsi fii yàlla na gën a jëm kanam sëñ Mame Bara mi nag Euh, nun ñi nga xamante ni noo bokk sañ Baara sant nañ ko bu baax a baax a baax loolu nag yemul ci noonu ñim bokkal sëñ Touba ñëpp a ko sant ñëpp a ko bëgg te mbëggeel gi li ko waral mooy nim mel rek jikkoom ak taxawaayam ak yitteem ak féetewoo gi mu féetewoo li sëñ Touba gënoon a bëgg di ko ci liggéeyal muy alxuraan ak xasaayid daara ji ni mu ko waxee léegi sama jur moo tegoon xeer wi bi muy teg xeer wi it ñoo ànd kon am na lu ma fi xam booba ba léegi nag ca na mu gën a rafete def ci yitteem def ci pasteefam def ci jomam def ci guddeem def ci ay bëccëgam loolu lépp nag ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa ji rek a tax ak sas wi nga xamante ni way juróom bàyyee na ko ko la ca di wàllam mu bañ a ruur ni nga xamante ni ñi mbokkal sëñ Moustapha ñëpp kenn ku nekk yaa ngay bay ca wet ga nga féete te mbayin wi rafet lool moom nag dafa am lu sëñ Tuubaa waxoon loo xam ne moom dal na ko ci bokkam yëpp mm-hmm. wa min saadatil fata xaytu xasad an la si rachad bokk na ci saada bi nit ki di am mooy ku bëgg lu baax ku ne bëgg la moom ku bëgg lu baax ku ne bëgg nga ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah ah ñu ngi bi nga xam ne suñu bis mag la di suñu bis wëlëre ah bis mag wax nañu ku ñu bëggoon wax ak yàlla ah, am fu ci feetu leen lool boo tax na bis bu accepté rek ah lii war suñu mooy ñu bokk njaboot gi xam ne suñu njaboot ñu fi nekk njaboot ko xam ne ñu nangu ku leen yilif lañ mm-hmm. tegu ci yoon yi wax dëgg yàlla waaw suñu si baax a baax a baax ñaan suñu borom bàyyi leen fi te lépp lañ ñaan yi tamit ci bis bi mm-hmm. suñu borom nangu ko ka tax koy def moom tam fay la ju koy seen jort mm-hmm. ndax moom la am doom bu fi jógee bàyyi fi doom yoo xam ne ni ko suñu borom baaxal mu di ko ñaan yàlla di ko fàttaliku am lu koy jëriñ foofu la kon ñu ngi sant ñëpp ci loolu di sant mbokk daal di fekk yëpp ñu ngi ñu ànd ñëpp daal jërë kilifa taxaw ñu ci gépp fànn ci sëñ bi liggéey bi léegi jaaxale wuñ ci dara te nekk yéen ñuy wétli yéen a ñuy yéen a ñuy te lépp lu ñu nekk buñ gëstoo gis leen buñ xoolee ci suñ kanam gis leen ci dañ ñaanal nag suñ borom yàggal leen fi te wéral leen ngeen yàgg ci suñ kanam ñu yàgg seen ginnaaw ba lépp loo xamante ne bi yéene ngeen ko rek suñ borom àggale ko ci barke sëñ Tuubaa suñ xol sedd na lool eh, suñ xol sedd na lool bëgg bu baax a baax a baax di sàkku ci ñaan bu baax a baax mu a nekk rek ñu leen gis ñu leen taxaw yéen a ñuy digal yéen a ter yéen a ngi xool ci ñun ngeen jaar lañ ci ci yoon waaw am nañ ci mbégte baax baax baax wa rahmatullahi taala wa barakatuh mooy wax ni ñu nuyu mbooloo mi fi teew yëpp. ñaa li ci jiital kilifa yooyu sëriñ maam Baara tudd léegi. ndax ñooñu mu tudd léegi. rakki sunu waajur lañu. rakki sëriñ Xaadim Moodu Baara la ñuy doon. rakki sëriñ Moustapha la ñuy doon. nee na kon mu leen nuyoo. dañ koy jaarale ci ñoom. waaye man nag ak cant. waaye nun nuy beral ak cant sunu rakk ji toog di sëriñ maam Baara Mbacke moom Cheikh Moustapha. daa ma koy wax bis bu ne. ci ñiy bégal sëriñ Tuubaa nga bokk. ñiy bégal sëriñ Baara nga bokk. ndax Mbacke bañ la xamee ba tey. maanaam ci lu Serigne Touba bëgg Serigne Bara bëgg ko rek ci nga nekk. Serigne Touba lépp mooy alxuraan. ndax Serigne Touba Xaadimu Rasuul li ko gënal lépp mooy alxuraan. te moom moom yow day Mbàkke da dundal alxuraan. te ba mu koy jéemit. ca dañ koy jéemit. yombul woon. ba koy jéemit yombul woon. waaye pas-pas. nee na ak yéene. moo tax nga def lii ba mu yegg si fii mu yegg si tey. mën naa ne muy sant waay juróom naa lii muy sant na ko lu jiitu lii lii ndax pàkk bii ndax pàkk bii li fi gënal waay juróom li mooy li muy dundal fii mooy li alxuraanul karim kon ñu ngi dëkk di ko sant mi ngi sant moom mi ngi dëkk di sant moom ngi dëkk di màggal. mi ngi dëkkit di màggal. ndax bis bu muy dundal alxuraan bu ne. ndax fu ñu di béréb bu ñu dundalee alxuraan bu ne. bis bu muy dundalee moom alxuraan bu ne. nee na bis booy dundalee alxuraan bu ne. bis booboo gënal bis yëpp yàlla. nee na bis boobee moo gënal bis yëpp yàlla. gënal ko yonent bi. gënal ko Serigne Touba. gënal ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. gënal gënal ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. ba ci waajuram Serigne Moussa Abdou Aziz. ba ci doomi Serigne Moustapha Abdou Aziz. ba ci waajuram. ba ci waa sëñ Moustapha Abdou Aziz mu sëñ Abdou Aziz. moom ñu ñaanal bis ji nag moom mi ñuy ñaanal bis tey ji sëñ Moustapha. mi ñuy nag bis bii tey. man dafa amoon cofeel lool ci man. nee na moom dafa am cër lool bu sori ci moom. dafa amoon cofeel ci man. amoon it cofeel ci moom. suñu masaa nekk vacance ci sëñ Abdou Aziz Baara. nee na bu nu waxtaan wala nekk sëñ Abdoulaye Baara. masaa jàng bay vacances yi nee na bu nu masaa na jàngit bay vacances yi ba sëñ Abdou Aziz Baar dajale ñun ñëpp ba sëñ Abdou Aziz Baar dajale ñun ñëpp man ak Cheikh Aziz Mbacke man ak Cheikh Aziz Mbacke rakam rakam néeg la ñuy jox ca guy mbind néeg la ñuy jox ca guy mbind daaw ma fanaan kër sëñ Xaadim Modou Baara daaw ma fanaan kër sëñ Xaadim Modou Baara bu Cheikh Aziz toogoon fii tey mën na koo seede bu sëñ Aziz toogoon fii tey mën koo seede su masaa ñëw Amérique it bu masaa ñëw Amérique bu masaa ñëw Amérique damay wóolu ci saasa. damay daal di wóolu ca saasa. fu muy dem danaa fa ànd ak moom. fu muy dem ma ànd ak moom. moo xam wér-gu-yaram la. moo xam ci wér-gu-yaram la. moo xam leneen la. moo xam leneen la. su ma liggéey ba wàcc rek. su ma liggéey ba wàcc rek. su ma sangoo. su ma sangoo. ca moom laay wettilikoo. ca moom laay wettilikoo. nekkoon référence ci ñun ñëpp nag. nekkoon nag mu nekkoon ne sunu référence ñun ñëpp nag. kon bu njaboot gi melu woon nit. kon bu njaboot gi melu woon nit. am na ñun responsabilité bu nu war ci ñoom. am na ñu responsabilité bu nu war ci ñoom. maa ngi koy wax jenn léegi. maa ngi koy wax sa jenn rakk léegi. ne ko sama baay baaxoon ay rakk nag. ne ko sama baay baaxoon ay rakk nag. waaye man am naa rakk yu baax. waaye man am naa rakk yu baax. yu dal xel. yu ci la bokk. ca moom Serigne maam Baara mi ci la bokk. kon bis bi yàlla nañ ko yàgg def. kon bis bi yàlla nañ ko yàgg a def. barke Cheikhul Khadim. barke Cheikhul Khadim. yàlla ko yàlla ful. nee na Thiel Diop yàlla ko yàlla ful. yàlla yokk ay leeram. yàlla yàlla yokk ay leeram. ak xéewalam. ak xéewalam. ca mag ñam fa fekke. ca may nu fekke. ca mag ñam fa fekk. ci ak it mag ñam fa fekk. maa ngi gërëm sant ñëpp nag. sëñ bi wax ni mi ngi gërëm di sant ñëpp. di jégalu ñii nag ñuy toog. di jégalu ñuy toog nak, ndax ñoom ñooy kilifa barab bi. ndax ñoom ñooy kilifa barab bi. ndax suñuy waajur la. ndax noonu doonte lay at la it ñooy suñuy waajur kuy sa rakk baay rek. kuy sa rakk baay. sa baay sa baaya. kon ñu ngi a baax. kon noo ngi leen di jégalu baax a baax. baax a baax di leen sant bu baax a baax. jërë ngeen jëf.